suñu sawar ci jaamu yàlla gannaaw koor gi kenn ku ci nekk lam doon def ci lu baax ci weeru koor gannaaw bu digganteem ak boroomam jàllee ci woor ko yu baax yam doon séq ak jaame yàlla yit na xam ne yàlla moom ko doon séqal te di ko jaarale ci jaam yooyu yàlla mi ngi fi te mi ngi nangu ba fii mu nekk nañ ko gën a wéyal mu mel ne daal ni mu ko waxee su ma ko déggee mooy weeru koor day mel ne e, ndóbinu boo xam ne boroom da ko sol ba mu fagg bi mu duggee ci weeru koor nag mu gupp ko ba mu set wécc mu fudd ko ba mu tàlli rikk nay xool fa muy teg tànkam di fa dox di fa jëm ak bu bëggee jekki mu xool fa muy jekki ba xam fu méngoo la ak ndóbinoom boobee waaw walla déet sëriñ bi it mi ngi ñuy dénk ne bokk na ci doxiinu gaa yu baax yu jëkk ya bis bu mel ni su ñëwee ñu feeñal ko seen mbégte lool seen diggante ak seen moroomi jaam yi kenn ku ci nekk fexe ba ñi la gën a jege ci njaboot ak i dëkkandoo kenn ku ci nekk yëg na yow mii kat tey wute na ak démb kon tey bis bu mel nii bisub jéggalante la bisub baaloonte àq la te ku bëgg yàlla jéggal ko dugg ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru koor bi ak yi ci dégg beeg yu mujj ya na fab jéggale ak jéllale def ko muy mat goo xam ne gii fu mu jëm làng-làngee ko yóbbaale ko fa wal yaafu wal yasfaxu alaa tuhibbuuna an yaxfira allahu lakum wala man sabara wa xafara inna dalika la min azmi al umur kon boog li ko tàmbalee tey nañ fas yéene kuñ sëqaloon ñu jox ko loxo bu fekkee ñoo ko ko war a jox ne ko baal ma àq koo xam ne kii moo ñu ko amalit buñ ko xamee te xëmu ko ñu jëlale te seeral yàlla baal ko àq fu ñu ne suñu borom dafa joxañ wala ku suñu borom joxañ la te muy lam yor mënuñu ko ñàkk ñu fexe ba kenn bañ ñu caa gën bañ ñu caa man saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin mu mel dañ koo laaj ñooñu mooy ñan mu ne alladina yunfiquuna fi sarraai wa darraai wal kaadimina al gayta wal aafina an innaas mooy ñi nga xam ne bu joxoñu suñu borom jàllee it ci lu mel ni weeru koor wi ñu génn du tee fu ñu dégg lu baax daw wuti fa ci nan ci luñ man ci dimbale ko ñu war a dimbale lenn li ci suuf bu fekkee suuf la laaj lenn la ku ñëwal boppam ne daa yittewoo tey wan na mer te ëmbal ñëpp jàmm